moom mooy retraité yi nga xam ne ay jeunes retraité nañu xam nga retraité gars dañu yaakaar ne retraité mooy pas yu xuugee yooyu déedéet retraité am na ay jeunes retraité yoo xam ne ay jeunes nañu mais retraité nañu ñoom nag ñoom ñoo représenté pas retraité yu yàgg yi parce que pas retraité yu yàgg yi mënut ñoo déplacé wu ñii nag ñoom dañ ne ñoom Macky Sall ñoo bokk <laughs> génération ay booy gentleman pas retraité yoo xam ne tey boo doon def marché bu ñu jógee Dakar mun nañ dem ba jam ñaajo du ñu naan ndox te du ñu ñàkk ndax ay jantal paa nañu ñoom nag démb ñoo doon marché toj nañ marché bi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay anciens <laughs> retraités ñoo yebal les tout nouveaux retraités ñu fas yéene jàkkaarloo Macky Sall ñu xool lan mooy cool yi ak retraités yi tey bu ñu ñëwee fan la ñuy wax ak Macky Sall ñu seeti les jeunes retraités yi nga xam ne ay pas yu fraîche lañ pas jantal <laughs> Sonko. ok. merci merci merci merci euh, ñu ngi leen di nuyu ah. Euh, dañuy présenter suñu collectif bi. parce que ñu ay jeunes retraités nañu. parce que taxu ñoo màggee noonu quand même. dañoo teel a liggéey. kii moom mooy Ringo. moom mooy chargé de communication bi. kii moom mooy euh, Samba. moom retraité. pël la euh, nekk ministère de l'intérieur nekkoon fa donc ñun dañu ñëw pour wax ak président Macky Sall parce que suñu papa yi nga xam ne ñun ñoom ñu ñoom ñoo ñu jur di nekkoon ay anciens retraités ak ñun les tout nouveaux jeunes retraités ay cadre dama ne am na loo xam ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg mais pension boo xam ne ñetti weer ñu xëcc ko ñaari weer nga koy jot ci weer mais dama ne benn sagaru 15000 francs wala 20000 francs boo xam ne dañ ciy jël ay taxes ñu ko dagg ba pare dañu lebal crédit boo xam ne ñun laajuñu ko dama ne état Sénégal na wax ak IPRES et je vais donner la parole kenn ku ci nekk ci ñoom ñu wax bu ñu paree ñu tënk ko wax suñu plan d'action lu ñu ko nar a defee parce que ñun tamit duñu ay màggetan on est des jeunes retraités yoo xam ne c'est l'âge qui nous a mis en retraite mais la force est là ah euh, merci tout d'abord en tant que porte-parole des jeunes retraités du Sénégal je pense que la situation est catastrophique et elle est dramatique. effectivement tout simplement parce que l'État du Sénégal nous commence à nous laisser en rade. on n'est pas si vieux que ça. on a des cheveux blancs. on a atteint l'âge de la retraite normale. oui mais on il nous reste des forces encore pour travailler. mais bien sûr ah ah mais imaginez-vous vous donnez un prêt à quelqu'un sans l'avertir. mais du yoon. mois. on vous soutire des sous vous ne savez pas ça passe par où et ça dans la caisse de l'État et vous vous trouvez à zéro franc. Ah, mais loolu yoon. yoon euh, ñun màggataguñu. déedéet. màggataguñu. déedéet dañu teel a yóbbu retraite mais màggataguñu dese nañu doole boo ñu. dañoo teel a liggéey boole si. parce que boo xoolee ni ñu soloo xam ne ñun màggatuñu. teel a liggéey lii nag daf ñu naqadi moo tax ñu koy kaas te bu jëree ñu dem ba pare dinañ dem ba pare. dañuy dem ba pare ah ah Samba Yoro Eh, abid à Dar Jolof eh, boo waxee loolu nag dinaa si kontaan ndax fu nekk nii affaire bi dafa jéggi dayoo ndax ñun boo ñu koolee comme ni Kouthia waxee ay pape jantal paa lañ ah. yoo xam ni dem na directeur waa xel yaa ngi ndax liñ daan def suñu jamono bu léegi ñu ngi koy def waaye affaire bi nag dafa upp dégg nga parce que bu ñu ñëwee di fayoo ko dañuy jaarloo de la gauche vers la droite vers le jungu ñaam waaw ñu def colonne couvrée am na ñoo xam ne sax paa yi mënatuñ dog du yoon tam ni tam dañu comme ça dañ leen jox ndox ñu ah, xam nga ne loolu dëgg du yoon boo gisee weeruñu bi way ñu dañoo nekk ñoo xam ne ni nag dégg duñ caakaan te bu ñu jógee nag waxuma la guerre de la mort waaye guerre de la faim nag du fi amee ah, léegi léegi léegi li Samba Yoro Pël wax dafa am solo ak Ringo ñun nous sommes jeune jeunes ah, dañoo teel liggéey moo tax ñu egg ci âge retraite bàyyi ci administration mais dañ leen ki waxal benn affaire Macky Sall ñoo moom ñoo bokk génération. Ah ah damane am béjaaw taxul nga retraité. xale bu ndaw dina am fukki at ak juróom-ñett yàlla jox ko mu am am béjaaw. béjaaw taxul nga dem retraite. mais dañu bëgg a xamal le président Macky Sall. que on est prêt à se battre. Oui. avec tous les. ah oui on va se a des anciens militaires. des gendarmes. Mm y a aussi des policiers. Oui. des sapeurs pompiers. Ah ils sont tous des retraités de l'État. mais vous êtes Donc, un sorte des joni noon koole président on wiyete abdoulaye wadde waɗnoo ni koko waɗon amélioration affaire kawanataade tuuti

mais xam nga la moo des léegi détermination face à face. face à face te ñun bu ñu palais gis ñu kenn ku ñu tere dugg ci palais bi. on n'a pas peur. parce que ñu ay retraités ne dañuy jël suñu xaalis di ko lekk. état Sénégal ñaari junne nañu on est des intellectuels ay ñëpp ci formé on est très bien informé te dinaa la si dolli leen. waaw ñëpp pël yi dinañ def gerew kenn dootul jaay yàpp kenn dootul jaay soow kenn dootul am kàr tuut ba nga am kàr tabas Karaane ñoo moom loolu. mais lenn laa bëgg ñu xam ko. lu ma bëgg ñu xam ko. mooy président Macky Sall. ñun dañoo retraité. te retraité bu demee ba benn jam jëmu jamono gis xale bu mu bëgg war a ñaareel war a ñetteel. Eh. da koy takk. parce que nag nañ waxante dëgg. mënatuñu am ña ñaari jabar war a ñetti jabar parce que eh, salaire yi buy ñëw ay ñaari junni ñu koy dagg dañuy ran ba dee naaj bu tàng bi IPRES bu ñuy bëgg a rey le président Macky Sall dama na nga jël li nga xam ne mooy IPRES jox ko retraité ma ne moo ko mën a yor xale bu ndaw mënul yor IPRES ñun dañoo sonn dañoo dee te nag ala ala wasa ala wasa maintenant parce que mu nag fu nekk nii jabar yëpp fay nañ ñëpp ñëpp nañ maintenant je pense que la solution est la suivante parce qu'il nous reste de l'expérience on va montrer à l'État du Sénégal que nous avons un savoir-faire monsieur vous êtes un directeur des impôts vous vous connaissez en mathématiques je veux que vous décortiquiez le mathématique comme ça ils sauront que dese na la dara le président Macky ah, Sall le président mais le président Macky Sall na xam ne ne retraité boo koy fay 15 000 francs ñetti junni facture courant ñëw facture ndox ñëw sa benn doom liggéeyul tu es di topp di gérer euh, loo xam ne vraiment yoon bugg ko l'islam bugg ko koy aaye te on est def loo xam ne dama ne ñun dañu war a épanouir ñun dañu war a épanouir dañu war a bëggee suñu xol dañu war a def loo xam ne wax dëgg yàlla ñun on est des retraités mais suñu xel yi suñu doole mu ngi ah, suñu âge moo dem retraite du Sénégal mën na ko dama ne lii dañ koy jeex dañ koy xeex ba mu jeex tax laa wax te nag duñu ay xale ah, duñu ay xale ah, duñu ay xale duñu ay xale ay magam ça va faire on va vous attaquer dans le monde dañuy fay suñu xaalis donnez-nous notre argent dama la ñëw leen on n'a pas peur les gendarmes les militaires sont des retraités les sapeurs-pompiers les intellectuels les gouverneurs tous sont des retraités on va embarquer à 2 plus 2 égale 4 on va avoir 4. Qu'est-ce que ça veut dire bu ñu doon nekk suñu xaalis suñu xaalis dañoo sonn dañoo pare qu'est-ce que ça veut dire ñun dañoo sonn qu'est-ce que ça veut dire soxla ñu suñu xaalis possible ñetti weer ba ñaari weer benn weer ñaari weer dañu takk ay loxo dañuy jëlee dañuy bëggee c'est pas possible mais c'est quoi ça ah non suñu yoon nekk suñu xaalis suñu yoon nekk dañuy takk ñaareel dañuy takk ñetteel déedéet